voilà Abbas s'il vous plaît rek sa réaction parce que nga dundee tey scène bi nga xamante ne amoon na fi si fàttali ni seen bi euh, du lu bees ndaxte si atum 2021 même li yéen ñu jàppee woon président Ousmane Sonko euh, tey également ak bi amaat euh, yow nga taxaw tey ki nga xam rek moom mooy si clinique suma assistance en tant que ku jege Ousmane Sonko tey lan moo nekk sa réaction Abbas Ba non réaction bi mooy gàcce ak

d'assassiner le président Ousmane Sonko je pèse bien mes parce que il est là hein substance bi ñu ko wis kenn xamul la il est là en train de faire ses analyses j'allais dire celui que j'ai vu man que je viens de voir il est très mal en point lu dal président Ousmane Sonko c'est de la responsabilité du président Macky Sall ils ont utilisé des balles il y a un il de nos de, de, des gardes de la sécurité mu ngi fii dañ ko opéré parce que ils ont utilisé des balles contre yàq tànk bi pompe yi ñu pompe le président Ousmane Sonko ay ak Guy Sagna le président lui-même vient de nous dire que pompe boobu il est sûr que ni dans les pays développés sax kenn utilisé tu ko ça veut dire que ces gens-là l'ont fait exprès parce que dañoo dañoo dugal ci police ak gendarmerie des voyous c'est ça la vérité mais mais mais mais mais mais ñii xanaa xamuñu droit le président n'était pas obligé d'aller au tribunal il pouvait le juger par défaut et pourquoi l'obliger à aller au tribunal parce qu'ils l'ont fait la dernière fois ñu ne nañ ko defaat parce que les gens étaient calmes moo tax tey Mame Mbaye Niang sàcc bu mel ni moom moo tax tey ñuy taal Sénégal tey Sénégal a ngi tàkk Mame Mbaye Niang moo tax ñuy taal Sénégal ah ah li président waxoon la ñuy wax c'est la constitution moo ñu jox droit ñu résister on va résister contre l'oppression on va résister contre la dictature de Macky Sall. Et on en profite aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous demandons la démission immédiate du président Macky Sall. Il doit démissionner. Il doit Parce que ce qu'il est en train de faire montre que mënatul yor Sénégal, il faut qu'il démissionne. dafay démissionner te président Ousmane Sonko mu ngi fii lu ko dal fii Sénégal lu ko dal lu ko dal ñun dinañ ko rëccu de mais ñu bari dinañ ko rëccu. il faut que ça cesse ces agressions là contre nous xanaa président Ousmane Sonko rek moo fi nekk moom rek moo fi nekk Sénégal comme homme politique moom rek moom moo fi nekk et puis ñu ngi wax boobu ba léegi ñu ngi wax nañu artu ku artuwul nag di nga àtte wax nañu ba sonn wax nañu ba sonn boo waxee ñu ne Pastef Pastef mës ngeen gis Pastef def meeting ba mu tas histoire am mës ngeen dégg Pastef dem di agressé benn parti politique mës leen ko gis. mës ngeen gis Pastef ni di def meeting ñu dem di agressé ñooñu mës leen ko gis mais c'est Pastef et c'est le président Ousmane Sonko qu'on tente d'éliminer par tous les moyens ils ont tenté de le faire avec cette pute de Adji Sarr ça n'a pas réussi ils savent que dossier boobu mënuñ ci dara est-ce que yéen a ngi déggati ñu wax affaire Adji Sarr maintenant c'est un autre dossier qu'ils ont créé pour l'éliminer loolu kese la coow yëpp loolu la y a pas autre lu yàlla namul ci moom ñu gëm yàlla ñiy fexeel ñi dara wóoru leen sax ne ñoom 2024 dinañ ko fekke maintenant on fait appel à la communauté internationale pour le dire que nous avons en face de nous un régime assassin qui a assassiné 14 personnes en 2021 aujourd'hui ce pays est en train de brûler Parce que tout simplement, le président Macky Sall veut éliminer celui qui doit le remplacer et qui va le remplacer en 2024. Inch'Allah Rabbi. Les vidéos sont là. Les nervis on commencé à opérer. Mais ce que je dis, partout, wax naa ko waxati ko waxaat naa leen ko tey devant tout le monde nervi bu ngeen jàpp taal leen ko ba mu tàkk man maa ko wax kenn du fi am sa ndey am sa baay bàyyi ko sa dem di attaqué doomu jàmbur yeeg ndeyu jàmbur yi dañoo am ay ndey am ay doom nervi bu ñu attaqué nañ ko taal Ahmed Suzanne Camara nee na nañu ñëw taal kër président Ousmane Sonko loolu la wax du loolu la wax mook Anita xaw ma Anita lu tudd xaw ma lu loolu lañ wax duñ leen xaar parce que xam nañ duñ ñëw mais ñun ñooy ñëw daal seen kaw ñun. blocus si buntu kër xam nga lii mooy wayadi blocus bi ça a servi à quoi romb na mu ngi fii. bàyyi leen foofu ñu toog di gàtte ngelaw li le président est là il va se reposer nañ toog ci ngelaw li à moins qu'il vienne faire le blocus autour parce que président Ousmane Sonko moom mooy seen cible moo leen intéressé rien ne les intéresse fu mu nekk ñu fekk ko fa danañ ko topp ba présidence de la République en 2024 incha allahu rabbi on ne va pas accepter qu'on continue à harceler Pastef et son leader on ne va pas accepter qu'on continue d'agresser Pastef et son leader il faut que ça et ce sera œil pour œil dans pour dans et c'est le gatsa gatsa na patriote yëpp pare tel que le communiqué qui a été émis hier par le bureau politique li mu wax bureau politique leer na restons mobilisés et résistons c'est la constitution qui nous donne le droit de résister et on va résister loolu laa amul may wax merci. Euh, euh, Vous êtes euh, en direct sur. Ardo laa tudd. waaw léegi li ma doon wax mooy c'est simple. que je lance un message pour tous les jeunes patriotes. patriote nag suñ ko waxee waxuñu ki nga xam ni moo nekk ci parti bële wala parti bi ku nga xam ni yaa da nga gëm Sénégal di daw ci li nit ñi di daw ñun ñi ngeen gis ñëpp ay directeurs société lañ mais dañoo bàyyi suñu lépp bàyyi suñuy lal bàyyi suñu njaboot ñëw pour assisté président Ousmane Sonko kon nag tey jii képp koo xam ne yow yaa ngi toog nekk sa ginnaaw ordinateur di wax ñun jàpp nañ ni yow da ngay nekk pour wax pour wax rek. il faut que nit ñu wàcc sur le terrain ñu ñëw ñu état xam ni lii mu teg doomu aadama yi c'est pas normal du président Ousmane Sonko rek moom moo nekk Sénégal lii ñu ko def nii c'est c'est tellement grave te li ñuy seetaan ni nag lii raam nak ci ñag bi la jëm il faut que nag nit ñi jug que ça cesse dafa war a doy lii dafa war a doy quoi nit ñi dañu sonn dañoo maar. Ousmane Sonko nag fépp bu mu nekk dinañ ko fa fekk ñun ak moom ba ilaa yow mi diin incha allahu rabi dinañ ko gunge ba pale gatsa gatsa fu mu yam neex dañu sonn dañoo sonn dëkk bi heure bi ñuy wax pétrole di wax gaz di wax soufre tey jii waroon nañoo xalaat leneen lu dul nekk fi naan dañuy nekk di xeex ak dañuy nekk di def naka su dul noonu. ay coupe d'Afrique ak ay dañu defal ay stade ñun li ñu bëgg xam nga mooy lan ñu fexe ba nga xam ne nii étranger bu nga xam ne da nga ñëw ngay fay impôt nu mu waree. tey jii ñu waxee de telle sorte que dund gi mën a yomb Sénégal ceeb bi mën a yomb dund gi mën a yomb leneen ak leneen mën a yomb le 30 nag la ñu woote ñun balaa le 30 ñun ñu ngi sur le terrain jamono jii ñun fii ba le 30 ñu jugee fii loolu moo gën a dee pour gars yi xam loolu nit ñi dañoo sonn on en a mar dëkk bi dafa metti tey jii képp ko nga xam ne yaa ngi toog sa kër c'est parce que tey jii gars yaa ngi lay mosal wala yaa ngi def naka su dul noonu may lancé appel nag fii ba pir gu rëy ma dëkk maa ngi leen di lancer message Sénégal yëpp amul nelaw na ñëpp veillé toog dinañ leen jox information yi fépp fu président bi nekk dinañ leen ko wax xam ne mu ngi xew dinañ leen ko wax nit ñi dañoo sonn dañoo sonn je lance appel à la communauté international pour que ñëpp xam ne nii lii ñu teg Ousmane Sonko tey jii c'est inadmissible kenn mënu ko comprendre kenn mënul xam lii lan la éliminé nañ Khalifa Sall ñu ni déedéet ñu éliminé Karim Wade ñu ni déedéet mais kii wallaay dinañ xam ne nii du ñoom. d'accord jërëjëf ñu lay gërëm alors yow euh, tey ngeen ñëw. dama leen delloo trois jours maa ngi fi ñetti fan. man du ma gone ak kenn am naa jabar am ay doom dem fu bëri kon su may xeex li may xeex xam naa ko bu baax Ousmane Sonko mënu ma génne projet moo ma génne Ousmane Sonko projet projet bu ñu imposé mooy li nekk Europe ñi dem Europe xam na li may wax baax gis nga mbir mi. dafa war a jeex booy yii di naan ay fonde di jënd ay ndambe di dem ci gaal gi mbir mi bu leen neexee mu jeex tey ci guddi gi affaire bi li Ousmane Sonko wax ñu ñoo ko njëkk wax gàtt sa gàtt la dañoo war a jàmbara xeex ak ñoom lañ war a def xeex laa la wax de juróom li li li li réew mi ngang ko not Sénégalais yi matuñu vingt personnes ak seeni bandi ñun duñu ragal de li ñuy wax nëbbatuwuñ ko làqatuwuñ ko dama ne patriote yi li ñuy wax bu dee dëgg la ci moom ñoom ñëpp nañ fanaan si Cité Keur Gorgui ñoom ñëpp daw nañ génn Dakar parce que policier yëpp la ñu Dakar génn leen raison yi ñëw Dakar xeex bi Dakar la bu leen neexee Macky Sall ci guddi gi mu génn mu jeexal tàkk te fekk Ousmane Sonko ngi ci clinique bii kenn wërta tëdd ci laal di nelaw boo dee gor parce que nit ku dëggu la fii senegal li tax ñun ñi ñëpp ngeen taxaw di son la la xaalis la xaalis moo tax nit ñi rey seen bop mu jéggi xaalis kon lu mu leen dig nit ñi war nañ koo gëm ñun suñu xeex dafa dépassé sax dañoo dépassé ñoom Macky Sall ñi nee naa leen makisaal Sall dafa am problème jeunesse bu pare la am en 2011 ñoo ko doon xeexal place de l' place euh, place de fee buntu assemblée Macky ñi ngay wax ñëpp dañuy sóob ñun ñoo fa newoon di taal doon song Farba Ngom ñun ñii ñun ñoo njëkk mu taxawal mouvement Rëcc Touba. xeex ak Abdoulaye Wade kon Macky Sall mënuñu të Sénégalais yi nañ génn mbooy yi ne ci quartier yi di taali ataaya barke Seydina Mouhamed bu leen neexee jël ci avion di dem bu ñu taxawee defar suñu réew barke Seydina Mouhamed jël ci avion di dem réew bu ñu neex réew yu ay du duñ ko tabax ay malaaka duñ ko tax tubaab bi duñ ko tabaxal. procès bi ñu renvoyé ko la 30 ban taxawaay ngeen. ñun xeex bi tey lañ ko door du jeex duñ bàyyi dil 30 xaaruñu la 30 Mame Mbaye Niang mënuñu téye affaire bi du Mame Mbaye Niang de affaire bi la. parce que Macky Sall affaire banditisme bi mu jaay na ko seen i jënd arme yi mu ko pour Ousmane Sonko da koo jënd pour not ñu duma ñu ci yeew ñu duñ génn ci bu mag jaam ci le 1960 la Macky Sall bokk ba léegi poste yi gën a mag ci Sénégal Macky Sall yor na xam ne fi coono yi dund xam ne ni Sénégalais yi affaire bandi nga leen di jaay jeunesse bi génn leen génn leen leen Macky Sall di jaay ngeen jënd ko Macky Sall moomu leen jëndu leen ngeen ragal ay kaso wala dee dem ci gaal gi taxaw xeex moo ko gën États-Unis lan moo ko développé lan moo tax ni ñi ñuule tey ñu nekk fa président dañoo taxaw xeex ay ay ati at lañ xeex diine lislaam lan moo tax mu sampe lu tax mu sampe Seydina Muhammad sallallahu alayhi la sallam moo wàcc mission bi ci moom la jaarale nit ñi taxaw junniy bakkan wadd mu door a taxaw Sénégal lañ gëm man dama gëm ne sama bakkan moo war a wadd senegal taxaw na seen i génn kenn ku ne jàpp ne boo dugg boo génn kër waroo génnaat na leen ko jaral barke alquraanu karim bu kenn ku ne génnul sa buntu kër mu jeex police yëpp daw li fi ne ci police bëriwul ngeen maase la fépp bu leen tegg dara barke alxuraanu karim fu mu yemu neex. non soxlawuñ jàmm Macky Sall du nit kuy ay yéen ay waay ne du ngeen dégg ki ñi ki ñun ki ñu ki nga xam ne moo war a mi mission bi dafa ak a dégg day junj rek ma nit ñoo war a dégg Macky Sall du déglu kenn grand man Touba laa dëkk Macky Sall moo njëkk a toroxal sëriñ barke alxuraanu karim oto sëñ Cheikh Jëm Fall la nangu ci station bi may ki kii baaxut. li may wax man du ma eban du ma fende oto sëñ Seex Jëmb Fall la nangu ci station Total ba kon xam naa li may wax Macky Sall dama leen moo jëmbat ay saaga senegal lu ma la wax da nga cay teg baaram Macky Sall moom moo jël fal ministre bu njëkk a gis ñu saaga ab sëriñ ci Sénégal muy porte-parole Tidiane Souleymane si kii Souleymane si Diop saaga ko lan la ko Macky Sall de ñëwal Sénégal ma jox la gàtt rek nga kon ne di saaga sëriñ si. ñoom ñëpp nekk tey ñu nekk ay complice ñoom ñi leen saaga ñëpp nopp ay complice topp ci ginnaaw topp ci ginnaaw Macky Sall Macky Sall moom moo saaga Macky Sall moom moo saaga suñu alaaji moo saaga moo saagalu suñu alaaji Baara parce que Souleymane Sidio moo ne suñu alaaji Baara bandi la bandi buy xooñ ma jàmbaal Jaañ moo ko wax man inventé wu ma dara dem leen ci archive yi. ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal en mu ngi noonu ñu ngi koy gërëm bu baax Fallou Mbaye euh, maa ngi.